boppam lay nax. léegi xam nga nit koo xam ne day nax boppam boppam lay nax moom naxul nit ñi de. moom eh. boppam lay nax. xam nga Pa Abdou Diouf xam ne da ngay ñëw mairie jël tele yi amul internet amul lépp lu pour Macky la wax doo am fenn foo ko xoolee wala lépp lu Abdou Diouf wax doo am fenn mais léegi nit ñi dañoo weesu loolu. <laughs> nit ñi nit ñi dañ nit ñi seen xel xam nga yow par exemple man ma toog di la wax dara yow nga naan ma waa baax na waa baax na te yow li ma li ma lay wax yow yaa ma ko gën a xam téeméeri yoon. Hmm. xam nga kooku naxul man naxuma man boppam la Macky Sall boppam lay nax fi mu nii de moom boppam lay nax rek moom day nax boppam rek di nax boppam rek boo demee élection ñu dooraat ko bu sàccul election day ñëwaat xoolal wallaahi azim xoolal premier tour sax du ko du kii parce que boppam lay nax. Hmm. kon jàpp kon jàpp sëñ bi Sonko mënul dem Tamba waa Tamba génn di ko jox xaalis joxu leen dara Macky Sall dem nit ñi génnaat nga xam ni kooku ñëw nit ñoo ñu génn ngir Macky Sall yow da gis nit ki am xaaral ma dam lekk fa sama 3000 xaaral ma dam lekk fa sama 5000 dem xoolal boo demee sa buntu kër tiset bi fompukaay lañ koy def boppam <laughs> lay nax boppam lay nax ñaareel bi mooy di nga génn kastuloor bi concert consular bi. waa Sénégal gis nga waa Sénégal xam nga nag problème bi mooy lu leen ko wax dëgg lu nga nit ki da ngay neex a jàppale. Mhm. chaque jour dama koy wax ñi nekk fii sonn ñu si dara ñoo ngi lekk ñoo ngi naan bu ñuy nekk si téléphone yi di wax di déglu ay information di di woote di wax di déglu kii débat yi loolu waa Sénégal tax ñu koy def ñun ñun ñoo ngi si jàmm ñoo ngi ba suur ñoo ngi naan. Mhm. ñoo liggéey mais da gis nit koo xam ne yow amoo liggéey amoo xëy amoo kii. yow nga topp si Macky Sall Macky Sall élection ñëw mu jox la cinq mille wala dix mille franc wala cinquante yu un million sax jaru ko billaahi bu la joxoon un million jaru ko mhm. bu la joxoon un million jaru ko parce que di nga toogaat juróomi at yoo xam ne da ngay souffrir mhm. ñaareel bi mooy ñetteel bi mooy Pape Alé Niang rek mhm. jàpp Pape Alé Niang rek képp kuy gor gor laa la wax de waxuma la nag ay ñoo xam ne duñu képp koy gor ñu ñu jàppee Pape Alé ñaa rek jar na génn tëgg. Mhm. Pape Alé Niang rek waxuma la ñeneen ñi de ñeneen ñi de waxuma la ñeneen mais Pape Alé Niang rek na génn tëgg. Mhm. mais Macky Sall lan la président la président koo fi teg ñu ñoo ko fi teg mais bu ñu amee lu ñu naqari duñ ko na yow xoolal li ngay wax ñun neexuñu ñun lii moo ñu neex bàyyi Pape Alé Niang bàyyi ñi nga jàpp te jaarale affaire ci yoon 2024 nga dem ngir yàlla war a suul ay waa ji la Macky Sall na dem ngar yàlla bàyyi suñu dëkk bii. <laughs> aywa Macky Sall xanaa du déglu du déglu du leen déglu yéen. 2024 jotagul de. est-ce que dina leen déglu mooy mandat am donc 2024 jotagul. non mais est que dina leen déglu. Ah. loolu moom euh, laaj woowu noonu samp naa ko ñi nga xam ne ñooy seetaan. waaw Macky Sall nag ngir yàlla na Macky Sall waxuma la de wallaahi azim bu doon def référendum ne deux mille vingt quatre wala deux mille vingt trois wallaahi ñu ne ko demal deux mille vingt trois. <laughs> Ah, <laughs> ah kon lancé leen pétition bi boog. ah. <laughs> kon ko lancé leen pétition bi merci. merci di ko di ko gërëm bu baax a baax mbokk moomu doon. doon uh, woote. sëkk sëkk ak barke sëkk ak barke sëkk. doy ma sëkk. Mhm. Mhm, merci ah. merci euh, di ko di ko gërëm bu baax a baax mbokk moom doon woote depuis depuis Italie ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo nekk Italie fan club Mbaye Anta euh, <laughs> suñu xarit yooyu noonu ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu waa Espagne itam euh, gis nañ message yi nga xamante ne ñoom ñu koy envoyé bu baax a baax di leen xaarandi itam ci. waxtaan wi fàttali leen rek ne tey ñaari ponk lañ leen di indil mu di consécration bi nga xamante ne waa coalition Yewwi Askan Wi namm nañ koo amal bésu fanweeri fan ak benn bu am huit heures ci ngoon jotee waxtu wi nga xamante ne moom la président de la république Macky Sall di def message à la nation ñoom ñi lee rek waa Yewwi Askan Wi comme ni ko Ousmane ko waxee ni ki dem ci seen conférence de presse daañu fëgg bool yi ngir wane seen ñàkk ànd ci ni réew mi di doxee ak ni ko président Macky Sall di euh, di euh, jëmale ñoom àndu ñi te gis nañ ne nekkul li gën ci réew mi donc loolu ndax sénégalais yi daanañu ko adopté awaaw am déet donc ne samp nañ leen ko képp ku ci amee xalaat rek mbokk yi mën nga woote ci numéro yooyu nga xam ne ñoo affiché ci ecron bi nga nekk ah, ci Sénégal nga nekk bitim réew ci sous région bi numéro yaa ngi mën ngeen rek daal di woote ngir ah, bokk ci waxtaan bi président Macky Sall moom mi leen sax moo nekk ni ba léegi suñu waxtaan ndax dafa dem ca Tamba ah, am fa nga nganu ñeenti fan naka noonu itam am na ay chantier yoo xamante ne nam na ko fa amal foofu ca réew mi ak yoo xamante ne sax daanaka noppi na ba pare ba tax na moom président Macky Sall neen li ci des foofu noonu ci chantier daana tax na ñu jël koppar gu toll ci juróomi téeméer ci ay milliards daal di koy euh, dolli foofu noonu ci Tamba ngir dëkk ba gën a gën a mën a ñoŋ bokk na ci ay lekkool ay université yoo xamante ne nam nañ koo tabax hôpital yi nga xamante ne nang nañ nan nam nañ euh, relever plateau technique wa lii lépp nag nekk loo xamante ne président Macky Sall euh, wax na ko fa ni mu nekk ay digg ak yenn yoo xamante ne sax jot nañ koo sax euh, réaliser lan moo waral li ni mel ndax politique bi nga xamante ne moom la fi teg boobu ba léegi moom la nekk di wëyal waaye projet yooyu dafa ne ñoom nam nañ ko yóbbu ba 2025 donc euh, ñenn ñi sax wax ne président Macky Sall actuellement nii day natt dooleem xool ba xam ndax sénégalais ñoo di jox bopp lii leen ndax moo am wa wala déet na wala ndax moom projet yi nga xamante ne moom moom moom la fi tegoon moom lay dal di wëyal donc laaj waa ngi noonu sant waaye képp képp képp koo xamante ne yow tamit am nga euh, beneen ponk boo xam ne bu nga koo waxtaanee euh, ubbil nañ la antenne ba ba léegi nag même su fekkul ci ponk yi nga xam ne moom ni mu la ko waxee rek jamono ji dañoo nekk ci rétrospective de l' actualité bépp actualité xamante ne jot naa amee amee ci biir mi wala sax ci bitim réew te mu soxal leen lool mën ngeen rek daal di wootee euh, partagé ko ak ñi nga xam ne ñooy fi nekk ngir rek jëriñu mën cee juddu donc su fekkee am na ko disponible rek ñu daal di koy jël wel waxtaan bi salaamaaleykum voilà kon donc Régis su fekkee élément bi élément bi yemb na xam naa ñu dem seet seetaan ci euh, deux minutes su nekkee bien sûr amul ku nekk euh, ci ligne bi ñu dem seetaan ci euh, deux minutes ñëwaat ci plateau bi continuer waxtaan wi ngeen fekke ñu bëggoon au nom de la conférence de leaders. gërëm sant toute la presse sénégalaise tous les acteurs de la communication sant leen màggal leen gërëm leen at mii di jeex atum épreuve la réew mi dund na ci dund yu métte métti askan wi dund nañ ci dund yu métte métti naam duñu wax ne amul bànneex mais li diis li dëgër li jafe moo ëpp li nga xam ne moom la nit ñi am source de joie et de bonheur donc à vous journalistes merci beaucoup nous vous sommes reconnaissants nous vous sommes redevables de votre investissement permanent au service de la promotion de la démocratie et de l'émancipation des masses sénégalaises parce que loolu ngeen fi nekke yéen a ngi def li ngeen war ni mu leen ware ak ni ngeen ko mëne e c'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour votre collègue Pape Alé Niang l'acharnement dont il fait l'objet inacceptable waxoon naa ko fi du ma tàyyi di ko wax place Pape Alé Niang du ci kaso surtout de la part du président Macky Sall ñun ñi fekkee démb xam fa ñu aw mënuñu nangu ñu di ko yóbbu kaso ak traîner dans les hôpitaux mais place benn journaliste nekkul ci kaso il faut que pouvoir bi xoolaat boppam xoolaat le rapport ses rapports avec la presse at maa ngi jeex di atum yéene di occasion pour ñu ñaanal askan wi yëpp au nom de la conférence des leaders ñaanal yàlla ku nekk ci yéen góor jigéen mag ndaw suñu kilifa diine suñu kilifa aada responsable politique yi ku ci nekk foo nekk te di jëriñ askan wi di liggéeyal askan wi yàlla na yàlla fexe ba 2023 gën 2022 loolu la ñaanal ku ne ci ñun ku nekk ci yéen parce que nag at mi metti woon na comme ni ma ko waxee nit ki gëm muy julit muy catholique muy juif muy animiste ku mënta doon yéeneeg yaakaar rek la am ci ki ñu yaakaar kenn la mooy yàlla suñu borom yàlla nañu fàttalil euh, voilà di gërëm bu baax a baax euh, ñi nga xamante ñoo fare ci régime bi mooy kàddu yi nga xamante ne Euh, kii di Khalifa Sall nekk président conférence de leaders doon na ko yëkkati niki démb nag euh, ci conférence de presse bi nga xamante ne moo lañ daan amal foofu noonu ca seen ca seen siège nag conférence de presse boobu lay sax ci la ñu dëggalee ne bésu fanweeri fan ci euh, weeru décembre la ñuy daal di rek amal ab concert casserole waxtu wi nga xamante ne moom ilee président de la république dana ca def ap message à la nation naka noonu itam nañ ko defee woon le 22 juin 2020 2022 bi ñu nekk ñoom loolu lañ ko nar a bamtuwaatee képp koo xamante ne rek ñoom ñi leen nag gis nañ ne euh, doxalin bi président de la euh, président de la république di Macky Sall di def ci biir mi yow àndoo ci wala gisoo ci sax euh, sa bopp maanaam am na ay rëkk nga bëgg moom mi lee mu daal di ko coppi donc bés boobu la ñaan nañ rek nga daal di jël say bool say palaat yaa xam rek lépp loo xamante ne jàpp nga ni ustensile la mën na def bruit bu rëy pour 20 heures jotee ci ngoon waxtu yi nga xamante ne moom la président de la république di def waxtaan xam mën nga daal di rek euh, génnee bool yi fëgg ko lu mat ci fanweeri simili ngir rek wane sa ànd sa ñàkk ànd ci ni réew mi di doxee donc loolu la ñu sàkku ci euh, ñi nga xamante ne nekk ci Sénégal donc euh, sàkku teef googilee ndax sénégalais yi daan daan nañ ci ànd waaw am déet donc képp koo xamante ne am nga ci xalaat rek numéro yooyu yaa ngi noonu affiché mën nga rek daal di ci woote ngir joxe sa xalaat ñaareelu ponk mbokk yi mooy moom mi la président de la république ba léegi nii ba mu demee ca Tamba daanaka nit ki tey sax la ngan gi di jeex foofu noonu ca Tamba moom am na ay digg yoo xamante ne jot na ko faa def bokk na ci enveloppe bu 500 milliards boo xamante ni moom nee na daana ko génne ngir rek ñu gën a jékki-jékkalaat dëkk ba def loo xamante ne daanaka mooy gën a ñoŋal dëkk ba mbokk ah, na ci ay tali yoo xamante ne war nañ ko faa tabax ah, hôpital yi bu bees boo xamante ne war nañ ko faa tabax itam ah, yeesalaat hôpital régional ba fa nekk mu àgg ca niveau 3 euh, lii nag bokk ci yenn ci ay mbëbët yoo xamante ne moom président de la république wax na ne war naa mën a nekk fii ak atub 2025 ñu bëri nag jàpp ne loolu lépp dafa nekk ci nattu boppam maanaam xool ndax sénégalais ñoo ngi koy wéy di jox bopp di di tax def ab campagne de comme ni ko ñeneen ñi di waxee donc lile c'est à quelle fin ndax yéen jàpp ngeen ne président de la république li nga xamante ne moom lay def ni li campagne la jëmee ci boppam wala sax day wéy li nga xamante ne moo di programme ci réew mi euh, laloo ci Sénégal ci loolu rek lay daal di wéyal donc laaj boobu lañ leen samp yéen ñi nga xamante ne ñeneen seetaan suñu ci bëggee àddu rek mën ngeen woote ci euh, numéro yooyu waaye itam képp koo xamante ne amee nga weneen xalaat jëmee ci ni réew mi di doxee mën nga rek ba léegi euh, woote ci numéro yi nga xamante ni ñoo affiché ngir rek euh, euh, partage kook ñun ak mbokki internet yi nga xamante ni ñooy seetaan moxtaan wi